de def choix après une multi consultation de porter le choix c'est moi euh, Lolo ma koy magnifier ici de de remercier commencer par Mamou Bakarba, le coordinateur communal du PPC à Bari également dire remercier euh, Seydou Diouf président Seydou Diouf qui est le secrétaire général national du PPC et vraiment euh, échange à et ça s'est matérialisé aujourd'hui pour que une telle loxo pour relever les défis de développement euh, à Bari. waaw sama naataango yi le premier message que je vais lancer c'est un message de paix et de solidarité. Ma campagne en 2014. versé wu ñu benn ça sang. ça nous kenn ça ñu kenn Nous dañ ko parce que campagne. man dama jàpp fête la. la démocratie c'est une fête. qu'on nous donne Nous tànn nous ñuy que ci

sans violence, ni physique, ni verbale, que le meilleur puisse triompher. Donc, petit top, moi, man élection ragalum ko bari mm-hmm. ndax bi fi Mar Diouf nekké mm-hmm. nek maire 33 ans moment bobo, ku ne da ngay nan da ngay nek candidat dañ na lan bo mo tud di nga dé dina ray nang nang ñi yëngatu fi yépp mm-hmm. seeni biir kër lañ nekkon kenn amu ci fit génne na dafa day taxaw pour la meeru à l'époque j'avais 35 ans Je ma ne dama bëgg a nekk les gens disaient que gone gi yaayam juddoogul mais terewul je suis resté debout droit dans mes bottes dem élection te gis malgré sama différence ak moom mille voix alors depuis lors aussi teguma sama tànk maa ngi continuer di impliqué à la hauteur de mon temps et de mes moyens par rapport aux enjeux dans le dans dans la commune ba tey jii tey ñu ñëw fi déposé donc élection yi moom man gëm naa ne que mënuñu ko ñàkk ndax fi demoon élection ci candidat yi ñaar nañu man la ak keneen à défaut de faire sa publicité euh, man ak keneen rek ñoo demoon élection le maire de Bargny mosul nuyu nii ko mm. ko votel mosul nuyu nii ko ko votel c'est son baptême du feu xamul nous lay peser. ak ñeneen aussi. ñu lan posé. peser. si waaw nit ñi tàccu ñii rek la ñuy mais waaw nit ñi ak tàccu ñii les résultats des jeunes dafa différent alors donc leau yëpp il faut que nous xam xam que daal vraiment chance sur une côté de nekk. que, maa ngi jox rendez-vous le 23 janvier. les barrières vont le confirmer dans les zones